formation bi ñu ngi ko accès woon si ay poñ yoo xamante ne ay poñ yoo xam ne la yu essentiel la maanaam moom dafa jàpp ne moom monsieur le maire Alioune Mar ne nit ki balaa ngay mën a liggéey faw nga xam la ngay liggéey lan la biñu defee loolu ñu gis ne sur 70 conseillers 18 rek ñoo si mës a donc 52 yëpp même bu ñu nekkee ingénieur ñenn ñi nekk ñenn ñi nekk ay cadre uti, yenn institution yi amuñu woon yenn outils yi pour mën xam li ñuy liggéey lan la mooy suñu rôle bu bees bi nekk rôle conseil municipal si njàngat boobu mu def noonu yenn conseillers tamit fekk si ko si loolu ne ko dañoo bëggoon nga renforcer ñu nga jàngal ñu pour ñu mën xam li ñu yor lan la bi loolu fekkee ko si lañ dogalee ne war nañu mën a organiser benn session de formation si njiital président commission euh, formation si lañ cabinet monsieur Alioune Seynia vraiment mu yombaloon ñu lu bëri du doomu tëngeej émérite boo xamante chaque jour ñu dégg ko fii wala fële muy jàngal ñii wala ñële kon tey la yoon la mu ñëw jàngal ñu waaye lépp mu ngi tënku si maanaam si volonté wu monsieur le maire Alioune Mar outillé conseil municipal yi ñu doon tey. et pour tënk mën nañu fànn yi mën ñu ngi ko tënk d'abord si rôle yi maanaam la mooy rôle conseil municipal la mooy fonction conseil municipal lan responsable responsabilité conseil municipal lan mooy rôle président de commission technique lan mooy rôle commission euh, adjoint au maire lan mooy rôle maire té li gëna essentiel té ñu jox ñuko té ñukoy exécuter moy budget lan mooy budget na lañ koy élaborer na lañ koy équilibrer na lañ koy exécuter ak tamit li nga xamné moy cadre réglementaire bi manam comme que dañu nek ci conseil municipal ay charte tënk yon tek ñu fi yon yoy lan la lan la ñu yoon may ci walu doxalin ak lan la ñu yoon tere si wàllu doxalin maanaam daal si tënk loolu moo doon session bi tey li ñu doon jox tey neexul di jàngal ay mag comme ni ma ko waxee sànq bi may joxee mot de fermeture bi parce que mag jàngal ko yëmbul parce que daba mag dafa war a am patience te mag bëriwul temps te jàngoro yi bëri na xam nga coono yi bëri na te ñu si weeru koor donc si diiru ñaari fan sur soixante-dix conseils soixante yëpp toog fi si ñaari fan neuf heures demi ba 17h 18h di déglu kon li ñu leen doon jàngal soxal na leen te jàpp naa ne am na njëriñ si ñoom parce que boo amoon njëriñ ñi ñëwoon si fan bu njëkk bi du ñëw si fan bi mujj te jàpp naa ne fan bi mujj sax moo daax fan bu njëkk bi donc ñu siy jaajëfal conseil municipal yëpp seen teewaay di remercier tamit Alioune Mar moom mi ñu jaglal formation bi